vendredi sur Saint TV. mbokk yi Saint TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cabinet bio Kenya. ci la ñuy recevoir seen ay gan yi nga xam ay kilifa lañ nga xam particulièrement ci bis yi nga xam xamna ay jour repos la la dalal kilifa yi Tay cabinet bobu nak la ñëw découvrir bu jour dimanche soir laay jox kilifa yi nga xam peut-être mënuñu ñëw ci mbolo, mënuñu ñëw ci ay nit ma recevoir len fi. secrétaire yaa ngi fi ñu yor ak baa ngi fi. boo wootee dañ la jox heure gis nga salon bi ni mu toll foofu du ñu dépassé loolu ci nit boo boo bind woon tey mën nañ la jox dimanche bi ko mën nañ jox beneen dimanche. par exemple pour Verne 24 damay may ku mu neexaa mu wut cent personnes yu am Covid ma jox leen ñu utiliser ko ci diiru dix à quatorze jours. guérison totale la ñuy am charge virale bi.